mën naa am lépp mën naa am lépp mais tey dafa a kàll. waaw bis bi doo doo ko laaj dama kaa li ma nekkoon quoi. yaa gën naa gis de. waaw maa ngi nii ndogu yaa muy fi. mais dama gis nag bi nga daanoo ba léegi. booy may ñu la ci nekk naan Nokia laa bëgg Nokia laa bëgg. waaw loolu sant rek di profité di mosoo sama supporters yëpp quoi parce que site internet bi sama site internet la quoi wasaare. dama fa am ay nit maa leen di bëgg baax a baax di mosoo sama supporter rek xëy na loolu sant yàlla rek mais ku ma si lam bëreel après mooy bëreeg moom ah. promoteur yi ñoo ngi lay contacter booba ak léegi. promoteur yi ñu ngi may contacter waaw mais si loxoy bëre jël la des ko bu ba de d'accord rek man pare naa quoi pour bëre. kon baax na ci keneen. jaay ñoo far. félicitations. waaw merci ñoo ko bokk gaan. ñu gis nga mobilisé ànd ak waa Cambérène ànd ak waa Parcelles naka nga non lépp ñoom la rek ba Grand Yoff xam nga ñëpp maa ngi lay sant fépp suba teel Talfa nekk du ñaanal doogi ndam waaw loolu kese la mais ñoo ñëpp waaw seex ñoom jàmm rek waaw jàmm mooy lépp. mais nga daan ñu ci bëri ñoo ngi wax say fan nga toll wala boog da ngay toog xaar. non instant yii daa am ñu ma war a bëreel jot na ñoom ay Mor Kankang Oligons Nokia frère ñooñu laa war a bëreel. xam ne bàyyi nga pour bëreel Nokia. waaw Nokia dama waaw man ak moom làmb la. dama ko doon wër de boo andi ko. ah mi ngi ne wër ko andi ko. ok ah. xam nga ñoom la joxoon avance nag yaa du yàgg waaw. na xaaral ma xool tuuti. sant gi si man la Pape waaw day sonn si combat ak Moussa ak sama rak waaw Papa Sidi Kaaw Tos. ma fi yaa bi daal fu mu nekk ñëpp Kaaw Bandi xam nga Zos maa ngi leen di bëggee du jaay mbokk yi arbitre bi laaj na ñaari mbër yi combat dox ci diggante Dictionnaire ak ki nga xamante ni ni Caatu Guy gi Dictionnaire baa moo ngi seere lampataaka ba moo ñu féete à ñoo ngi lewaatoo Caatu Guy gi aj na garde bi eh, ñoo nga xoolante eh Dictionnaire door léegi Dictionnaire door na ko Dictionnaire door na ko Dictionnaire gën da koy takk Dictionnaire takk na caatu guy gi da koy biij wala lu mu koy def Dictionnaire caatu guy gi takk na ko tegal na ko seet da tëdd da koy daan daanooguñu tekkaat na ko eh Dictionnaire mi daanaan la da koy taxabal wala da koo bëgg a kal Dictionnaire ndànk Dictionnaire ndànk yaa ngi koy biij da koy zongale dina ko zongale daanoogul jël amagul bàyyi leen ñu bëre déedéet déedéet jël amagul abit abit jël amagul déet bàyyi leen ko fu mu jëm kii fu mu jëm <laughs> foo jëm kii fan la jëm ci Pamax la jëm xanaa <laughs> lan moo xew lan moo xew Dictionnaire daanu na Dictionnaire daanu na caadu gi gi daan na Dictionnaire forcé baaxul lamb kenn du ko forcé mosal siyaare na waay. dafa mel ni da nga sedd. non xam nga rek moo loolu quoi gars yi si depuis 3 heures du matin dañ ma jaay di ma sang ba léegi nii. 3 heures du matin ba léegi. alxuraanu kari wallaahi. ngeen nangu ko mënoo woon bañ. ah mënoo woon bañ. ah mais mënu maa bañ xam nga rek moo loolu. mais tey bés bi lu mu laaj. bés bi lan la laaj rek ndax tey bisu bis boo xam ne amaana tey jarul ñuy wax bisu jëf la quoi mais nag yàlla baax na. bu fekkee yàlla combat bi dina am xeex. lu mu laaj rek incha allah ñu def ko. lu mu laaj ngeen jàppale ci mystique. lu mu laaj ñu dafa mel ni da nga booy di leen àtte. waaw gis nga ah samay gars lañu ñëpp ay morom ay génération lañ bu ma xewlee noonu la ciy sonne ko suñu xewlee duñ ma gën a kóore rek loolu la rek. noonu la demee daal. tay booy bi noo ko noo ko yebee. waaw mu ñëw rek xam ne làmb affaire góor la gën a bëgg la rek ndax daanu dafa metti kon moom nay góorgóorlu pexe daan incha allah te ña ngi koy ñaanal loolu. incha allah rabbi ci kanam. Sadio ziar. maa ngi lay ziar sama. doom loone sama nday waaw ah, am na. gis nga yàlla ko def. mais tey naka nga ñëwee. waa sant yàlla rek. ànd ak sama waa koñ waa Fass Mbaaw. sama waa dëkk waa Sadio. waa Jolof xam nga gars yi waajal ma rek. waaw ak sama waa Egil Lamsar. fi fii mujj ci victoire nga jógee. tey naka nga waajee ñëw. ak bés lu mu laaj. ñaan yàlla amaat fi rek. dina ci kattanu yàlla. mais dina ñëwoon vite nga yàlla rek moo fi ne. baax na bon merci. Ah, ñu ngi lay fay. li li dara li ay affaire lekk yaa ma gën a xam. li laa <laughs> waaw. waaw. yaakaaree ba. Dodo Sarr. kooku weex na de. xam nga ko. xale laa xalaat xalaat ñaaka la bi mooy sa ñaari combat mooy sama troisième combat ñaari victoire deux victoire la am bi mooy troisième bi hmm. waaw yàlla ma yàlla may nab ay bés bi la laaj bés bi lu mu laaj ma def ko lu mu laaj rek maa ngi xaar lépp lu ñëw baax pare pour xeex naa pour lépp kon bonne chance mbokk yi abit baa ngi wax ak ñaari mbër yi combat bi dox ci diggante Sakho Dior numéro 2 ak ki nga xamante ni nii mooy Kewel numéro 2 ñoom ñaar ñëpp numéro 2 lañu kee nga bàyyee ko Bawol kee nga nekk Kër Masar mbooloo abi bi laaj na ki nga xamante ni mooy Sakho Dior numéro 2 laaj na Kewel ki nga xamante ni mooy moom pare nañu arbitre bi sifflé na Kewel numéro 2 moo ñëwoon ginnaaw Sa Cadior numéro 2 la ñu jàkkaar lool ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Sa Cadior numéro 2 Gueweul numéro 2 tegaloo ñoom ñaar jël na ko jël na ko Sa Kajoor Sa Kajoor Kewel Kewel jàpp na dangay zongale dina ko daanam déet waaw waaw na ko tuur jël plaqué mu lu Kewel di defaat géwél saa kajoor ñoom ñaa ci am nga sa loxo ci sa sa loxo ci ngemb saa kajoor numéro 2 ak géwél numéro 2 mbokk yi jàpp na Sa Cadior jàpp na ku ci nekk yaa ngi jàpp di jël bu sa moom xale yaa ngi jàppante ba tey Sa Cadior ngay dóor Sa Cadior dóor wala boo Kewel Kewel la ngay dóor Sa Kewel Keweul Saa Kajoor Keweul daa mel ni a songale Keweul Saa Kajoor eh Saa Kajoor songale na ko léegi a ngay dóor ci faar a ngay dóor Sa Cadior Kewel lu ko def Kewel Kewel mu ngi koy busulu Kewel busulu na ko Sa bañ day daanu daan na ko Kewel daan na Sa Cadior Kewel daan na Sa Cadior daa di yow tël tànk bi mu tëgg ko busulu ko oh daan na ko jël bu Kewel daan na Sa Cadior jël bu rëy. maa nuyu naa la. fay naa la. ci loonee. sedd rek sedd rek. da seet. wuu li ma sedd. kañ nga commencé sangu. waaw ko ah sangu bi nii. li bokkut a a bital yi nii xëpp la. Ah. waaw. moo jaaxal ndox mi dafa bëri. mais tey gis naa sa dafa mel ni tey dafa yaram bi dafa xaw a seet nee na day bàyyi da lay bàyyi ak bis. waaw amul problème dafa waaw lu ma sama xel may rek ma dem jëli ko. di nga xeex. waaw bu soobee yàlla waaw. ñi ma naqaree dab daan. ñi ma naqaree dab ma bëri duur nga wax. a su trop ci ci na wax waa Bawol parce que gis leen tey ni la ni la gunge ànd ak yow tey ci bés. waaw waa Bawol moom aw ma seen fay ndax boo xool Bawol ñeenti kaar ñoo fi jógee. bilaay aw ma seen fay. yal na yàlla fay te tamit yàlla yal na yàlla ànd ak yàlla na yàlla ànd ak ñun si kàddu gi yàlla. bu dee li bari waaw bari na trop. maa ngi nii bëgg a dee xool seddaay bi nii man su ma sañoon su ma sañoon ñu bàyyi ma rek ma dem bëri ji. bilaay bidaay ñu bañ maa ko bidaay maa ngi wax waaye dama dama sonn si ndox mi bidaay ma liiw. ak rëgg-rëgg national Fallou nuyu naa. dellu ziar bu wér. tey ñu gis euh, combat bu mag am na fee teewlu nga tëgg fii bi mel nii lan mooy secret. waaw mais am mbégte bu baax. sant nañu presse bi bu baax ndax gis nañ seen taxawaay tey jàpp nañ ci di sant tamit mbëri ji bëre yëpp ndax yaakaar naa bu dee ñun rek la mën naa bañ a nii kon mbëri ji bëre di sant di leen ñi daan di encouragé ñi daanu di wax ne làmb noonu la di sant tamit amateurs bu baax a baax di sant tamit waa Ndiaye production ndax yaakaar naa équipe bu jeune la te équipe la boo xam ne nii équipe bu jeune bu buy gagné la ndax jàpp nañu ne tey ni nga ko waxee événement ma am na arène nationale mais teewul ñu ngi Iba ak Mor Kankang daan yaakaar naa ku gis stade bi ni mel xam ne lamb moom jeune la lamb jeune la ay ndaw ñooy bëree kon yaakaar naa promoteurs yi ay ndaw lañ kon bu buñ defee li war a jaaxal kenn. ñu gis nga teg la ñaari dimanche yoo xam te dañ cee war a tëgg tey bu weesoo diggante dab daan ak ki nga xamante ni mooy moo kankang dimanche yaa ngi jëm arène nationale ci bés journée boo xamante ni bu ci nekk moo nga cee génne ñetti grand combat ñu gis nga boole lépp lan moo waral loolu tamit. waa xam nga lamb ku yokku dee wàññi te yaakaar naa bu mu mel ni suñu xel day dal ci li ñu jëm suñu xel day dal bu baax ci dimanche ndax yaakaar naa ku gis saal bi tey ni mel ci moo tax ak dab daan fee ñoon di bi leseer jaatu yaraax andi Ada Fass Jokkel andi Tony Jackson 2 Laurent Ndiago Bou Siteu Sokh 2 Bécaye Baba Diakhal Kélé Mansour ak nga ne mooy armée 2 ak vraiment yeneen espoir Baba Siteu Frambeur espoir yu am solo kon yaakaar naa foofu amul lu tiit amul lu ñuy te nag le 27 comme ni ñu waxee rek suñu le 27 la incha allahu rabi te nañ ci wane suñu bopp bu baax ba ñu xam ne ñoo moom le 27. dinañ ci wane suñu bopp ñu gis na nga boole ci xale yoo xamante ne nii ay espoir lañ ay ndaanaan lañ lan ngay xaar ci ñoom ci bés. waaw non li ñuy xaar mooy comme lii rek innovation yu mag andi artistes yu doy vraiment def spectacle bu rëy di xaar ci jeunes yi comme nii ñu wane seen bopp mobiliser gëm seen bopp comme ni ko booy yaakaar naa dinañ def lu raw li daan am arène nationale ci kattanu yàlla. amateur lan nga wax jour moom dinañ maa leen la am. di leen wax ñu dee na sangu ba seet sañ sa ba jeeg xam bu ñëwee seen xol na seet comme ni seen xol seete tey incha allahu rabbi kontaan te nañ bég ndax Ndiaye production moom heure bu ñëwee amateur yi gis seen bopp. kontaan nañ ci. merci ñoo far. mais ñu gis combat bi mais combat bi nga daan ko ak manière bàyyi ko ba mu jël tànk bu nga busul. man maa mën a bëre. a nga ne kuy bëree ay caatu jokkaat caatu jokkaat yàlla na ko yàlla may ndam. li mooy ñaari combat. huitième combat. ñaari victoire. six victoire. Eh, yow ndaanaan nga foo nekkoon. maa ngi fi rek. Ah. maa ngi fi. lan sa kanam. waa li ci sama kanam comme samay adversaire rek. maa ngi déglu sama staff daal. baax na ba jërëjëf. combat bi dox ci diggante Doki écurie Dóor Dóoraat ak Fils de Katy écurie Bawol Fils de Katy moo ñu féetee à bi Doki moo ñu féetee à droite ngem moo teg ci sër bu weex bi ci kaw. arbitre baa ngi laaj ay juge am Doki ak ki nga xamante ne nii mooy Fils de Katy Doki moo ngi na ba ci biti. arbitre bu àndee ci digg géew bi da ngeen avant avertissement Doki am na benn avertissement arbitre bi sufle waat eh, léegi Fils de eh, na léegi Fils de Katy doo kii daw na jël ko Fils ba dóor daanu du ci am jël na tànk na ko daw ak moom da koy daan waaw waaw Fils de Katy daan na doo kii Fils de Katy daan na doo kii xeex bi fàtte ay tànkam waaw Ousseynou maa lay bëggee di la baax a baax. mais kii lu may toppee. kii xam nga moom damaa bëgg. parce que moom moom moom mooy Fallou ñëpp xam nañ ko moo moog Basir Kouar ñoom dañ ma bëgg. moo tax muy wax ne pour xam nga. yëngal nga may ko sens foofu. kii da lay mbal ak ne daa bëgg ma conseiller booy bi pour ñu doon champion. waaw ñoom booy la. booy bi fàttali naa tur bi sax nan la sax xaw yaa xaw ma. waaw waaw mais nuy naa la. waaw fay naa lu gën a. yaa ngi ci jàmm maa ngi a baax. mais depuis boobaa ak léegi kenn dégguloo kenn gisuloo foo ne. waaw defe naa Iba Mar bi tey la tey la depuis cinq ans duguma bi yaakaar naa. cinq ans duguma bi ma woo. depuis Kalaafa yaakaar naa. ma waaw loolu. waaw xam nga rek ni mu demoon arène nationale moo tax mooy loolu xam nga rek. waaye tey nag ñëwaat naa peut être. gis naa keroog nga bëgg kébel. combat bu yàgg nga gérer combat bi ba yàlla may la ci ndam. waaw xam nga rek. waaw mën a wax rek xam nga dama liggéeyal laamu daal te si laamu laa bokk xëy na yi bañ ma jël sax moo damay jëlee ñenn yi di maye chance waaye dafa jeex. dama boole di maye chance. waaw sa bët. waaw fi ma teg sama bët nag mooy ñoom si kaw ñoom Yékini Junior ñooñu laa teg sama euh, ama neex. maanaam foofu soxla. waaw xam nga nag 21 combat nag xam nga du jaaxaan boobu lay ñàkk nii lay def defagul nii ba nii rek dafa métti trop te at na bàyyi ma xel aussi sama gox yaakaar ma ñu ëpp benn 100 pour 100 boobu caaroy sam-sam la ñooñu dugg li may mu toll amul benn mbër bu bu ma ci ëppalee dara ci bépp gox nag waaw. kon pare nga daal fi mu toll nii pour jëflanteeg ñu ne ci kaw. yàlla xam na loolu may indi dafa am fu ma nekkoon doon préparé instant yii nii alhamdulilah rabbil alamin moo tax nag ma ñëwaat ci image yi nii moom mooy nii image nii waaw. maa xam ne dinaa ñëw toog ñu waa Thiaré yëpp nag ak fant këram waaw ak euh, xam nga Basir Kouade Diagne xam nga Alioune Fall sama kursi waa ma fi yàlla seefa fàtte wala xeer gi di ñaanal Pape Bawol Bawol yàlla na ko yàlla may ndam Baba Diakhal yàlla na ko yàlla may ndam Toumane yàlla na ko yàlla may ndam xam ñooñu parce que ñun lañ bokk quoi waaw. ñoo ngi ci combat bi mbokk yi Boy Sadio Thiatou Dionkane Boy Sadio am na benn avertissement Thiatou Dionkane arbitre sifflé na Boy Bawol Thiatou Dionkane écurie Bawol Boy Sadio écurie Lansar Thiatou Dionkal mooy féete à gauche Fils de moom la ñu jàkkaar lool ñoo ngi lewaatoo Boy Sadio Thiatou Dionkal ñoom ñaar ñoo ngi xoolante ci biir bët Boy Sadio lewaatoo noonu ba mu neex ñu dagg lewaatoo bi demee wet teg ñaari pas taxawaat ñu ngi xoolaat Thiatou Jonkane daa mel daa bëgg a dem Boy ngi taxaw di ko déglu Thiatou Jonkane Boy Sadio Caatu Boy Sadio nga koy déplacé waaye Caatu Jonkaan Boy Sadio jàpp na ci loxo ba Boy Sadio jàpp na ci loxo ba day bañ mu rëcc door na ko daw na ronu ko oh dol ba baaxul dugg ba baaxul Caatu Jonkaan Boy Sadio door na ko door na Caatu Jonkaan jàpp na ca xeex nañu ñoo ngi xeex waaw Caatu Jonkaan Boy Sadio door na ko tuuse waa mais jël na tànk ba jël na tànk ba da daan caatu jonkaan dëj na ko dëj na ko Boy Sadio daan na ko Boy Sadio daan na caatu jonkaan Boy Sadio daan na caatu jonkaan nee na baleen ma Boy Sadio am ndam Boy Sadio daan na ko Boy Sadio daan na Boy Sadio daan na Caatu Jonkaan Boy Sadio daan na ko waaw waaw la jël la daan na ko Boy Sadio daan na Caatu Jonkaan nuy naa la. fay naa la. ci loone maa ngi leen sant Serigne Touba wér. wax nga bëgg coow. coow comme naka. coow comme naka coow coow comme naka. coow comme naka. la moo tax nga bëgg coow. damaa gis may coow. lu ma gis sa diggante ak ñaaw na. nag dama gis boole làmb moo boole ñu war a bëre rek moo loolu. parce que làmb làmb yéen ñaar ngeen tolloo waaw loolu la wax de mais. nañ baax ba le 19 la leer bak Serigne Ba. mais wax parce que mënoo am combat wu di bëre Niang am coow. nga doo wax da ngay bàyyi bés ba loolu mun ma ko. non wax tuuti la laaj def lu bëri. ñoo xam ne ngay def. instant trois séances laa dóor damay xëy dem géej cinq ma ne laa yow dem jugee géej ay sept heures ñëwaat xaar ba huit heures maa bi dem saal su ma jugee saal ngoon maa ma dem écurie ba contact. parce que ngaa xeex ak booy bi ndax booy bi gis nañ am yëpp dafay yomb dafay naxante naxante naxat ba ñaag na daw ci jàpp daan. fi lay teerale dama koy duma daan billaahi. maa ngi booy xeex ak moom. dama ko duma daan ko du xeex day yóoru barke moo koy wax. day naxambe rek. moo koy wax moo lay rek. mu taxaw dëgër boppam. du yàgg. dana may loxo. da laa bu taxawee bu taxawee dëgër boppam laa am ci man une minute. moom moom day taxaw dëgër boppam. waxoon naa sama combat maag deux Ziga nee naa bu taxawee du yàgg. moom boobu arbitre prip. barke Serigne Bamba boo taxawee lamb du yàgg. wax ji jëru mi bëri. wax jëf bëri. barke Serigne Bamba. kontaan naa ci yow. ah jaajëf.

taxawal benn yoon. Omar Sy. Sy. Momo. combat baa ngi noonu dox ci moo kang-kang dab daan arbitre bi sifflé dab daan a ngi dox ci kaw moo kang-kang mu ne Fallou Ndiaye 20 février les 19 heures 28 moo moo kang-kang dab daan dab daan a ngi dox ci kawam dab daan moo kang-kang daf daan cokaas na léegi eh, moo kakkaan door na léegi moo kankan daf daan moo kankan door na léegi béykil bu dal esaat baa ngay riir waaye lamb ja jeexagul lamb ja jeexagul Dab daan jël na léegi ku moo Kanka ngi noonu di jaabante bari na de li ngay dugg moo Kanka dab daan bi fulewaat na combat bi dox ci diggante moo Kanka moo Kanka door na ko léegi benn coup bu fekkit bu dal dab daan rek li génn man loolu laa bëgg ci boo jëlee ku xam ne ku bi nga jël baaxul boo dawal génn ba jekk nga doog a dellusiwaat moo kan kan dab daan a ngi arrière di mel ne moo kan kan concentré wul sa combat moo kan kan door moo kan kan dab daan ñoo ngi leewaatoo xeex moo Kan Kan dab daan da koo bëgg baa du daanu baa du ko daanu moo Kan dab daan xale noonu moo Kan fam ko jàpp na moo Kan dab daan dab daan jàppante bi bëgg Dab Daan jàppante bi la bëgg Dab Daan jàppante bi la bëgg xeex bi xool na xool xeex bi arrangé wu ko. moo Kang Kang Dab Daan moo Kang Kang Dab Daan ku ci nekk yaa ngi mën a moo Kang Kang door na léegi moo Kang Kang door na léegi ku bu dal. moo Kang Kang dab daan dooraat na leen coup moom moo Kang Kang moo ngay door coup baax na moo ngay door moom moo Kang Kang da koy yenu nu mu def takk na ko day jógoon du jóg yenu na ko daanoogul daanoogul daanoogul dab daan daanoogul abit sifle na bàyyi jàmbur dab daan tëdd na kenn xamagu lan moo ko dal dab daan a ngi noonu Mama Kankan lamb Mama Kankan am na benn avertissement Dab Dane am na ñaari avertissement arbitre bi sëb la waat na Mama Kankan Dab Dane Mama Kankan Dab Dane Dab Daan ni nga taxawee mbër du ko taxawee Dab Daan daa si taxaw na jonn moo bu la onoo moo kànkàn Dab Dab Daan door na léegi ku dab daan moo Kan Kan dab daan production moo Kan Kan da koo bëgg a dóor moo Kan Kan da ko Kankang dab daan jël na ko moo Kankang dab daan jàppante nañu moo Kankang dab daan moo Kankang dab daan dab daan jege nga saako yi am na deux avertissement moo Kang Kang koy dafa mel ni koy puus jàpp na ndengeñ bëgg na jàpp beneen loxo ba dab moo Kang Kang boo am trois avertissement moom dab daan moo Kang Kang dab daan ku ci nekk jàpp nga taxaw di déglu sa morom moo kankang dab daan moo ngi doo suuf moo kankang production ñoom ñaar ku ci yaa ngi ne ku ci nekk yaa jàpp moo ngi doo ay coup waaye du coup na mu jàppee moo ko arrangé wala fa mu jàpp moo baaxul dab jàppatul fenn dab daan jàppul fenn moo kankang am na loxo ci ngemb dab daan moo kankang dab daan doon na lépp équipe la dab daana dóor waaw moo ngay fayu moo daa bëgg dóor dab moo kankan eh moo kankan moo kankan moo dafa dóor moo daa bëgg dóor ronu na ko jël na ba waaye dafa sori jëlaat na ko eh dab daan bul dab daan dootu may wet dab na ko wet ba dab moo kan kan li nga maye bari na dab doo bëgg xale bu toll ko jox wet li nga may da koy yenu daan na ko moo kan daan na dab moo kan daan na ko lan ko may dafa bari lan ko may dafa bari moo kan daan na dab